taxal salaamatan taduumu yaa salaam li yawalil ayaali fi daari salaam amin bi daari fataa tuuba li maskanihi daari salaami kama bil makka wal madina آمين بدار فتى طوبى لمسكنه دار سلام كما بالمكة والمدينة salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci seen télévision ba Fatihul Bichri euh, ñi ngi ci fii ci kër Serigne Ibrahima Mbacke Ndar di doom ci maam Cheikh Anta Borom Gaawaan ñëw fekk fi ki nga xam ni moo fi Serigne Ibra Ndar tey di Serigne Sidi Mbacké niñ niñ koy defee ci mboolem waa Kër Sëñ Gaawaan yëpp rek ngir taataan ay kàddu ngir ci dund ku riche dund gu am solo dund am njëriñ gi nga xam ni mooy dunduk Sëñ Gaawaan te ñëpp mën cee jariñu te seetlu nañ boobaak léegi ku ci wax rek côté bi muy waxee njëriñ lay doon loo xam ni du tax mu jeex waaye fu ñu dem rek kenn ku ne yaa ngi yëkkati say kàddu wax euh, kàddu yu am njëriñ. yu jëm ci dunduk Serigne Gawane kon bala ñoo guddal dañuy jox Serigne Sidi ginnaaw bu nuyoo ñu taataan rek kàddu yi nga xam ne dana ko dénk mboolem jullit yëpp rawatina murid yi yi nekk fépp ci àddina kon ñu taataan kàddu Serigne Sidi bismillah ji wasalaatu wasalaam ala seydina wa moolana muhammadin nabi lumi wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci bis bi leen ci sargal bis bi nga xam ni bisu Sëñ Gaawaan la woon bu mu doon jagleel sëriñ ba sëriñam ba ah, magam ba di xaadimal Moustapha muy bis bu ñu fonk ci yoonu murit rawatina waa Kër Cheikh Anta bis la boo xam ni bi sëñ bi jógee ci géej gi bi ko suñu boroom xamalee fu mu war a njëkk a teg tànkam muy Daaru Salaam ci leen maam Cheikh yow laay njëkk a gane si moo waral bis bi kon nag buñ ci tolloo liñ ci gën a def mooy ñaax taalibe ñaax mbokk yi ñu gën a fonk bis bi ci jàngal xuraan jàng xasaayit ak ay salaatu ala bi fii nag kër sëñ Ibra Mbàkke Ndar la kër sëñ Ibra Mbàkke Ndar ñu bari xam nañ ko ñu ngi ko gën a xam ci ñaari ràkk yi woon 2013 sëñ Ibra Ndar moo doon ñetteelu xalifa maam Cheikh ñett boobu nag dafa am lu mu wund ci zaahir ak ci baatin muy wëlbatiku di delloo boppam ci Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Ahmad Bamba bu ne yàlla ni yonent bi di ñu Cheikh Ahmad Bamba kon nag sëñ Ibra Mbàkke Ndar dellu na foofu ci sëñ Touba foofu la bokkeek sëñ Touba ni mu bokkeek sëñ Gaawaan sëñ Ibra waajuram bu jigoon dafa nekkoon soxna ñu naan ko soxna Marema Njaay ku ñu xamoon la ci kër sëñ Touba mu nekkoon taalibe bu bokk ndar jëkk a jébbalu ci sëñ Touba sëñ Touba wóolu ko yëkkati ko jox ko rakkam ja muy Cheikh kon nag bu bis bi dellusee ñu fàttali ci loolu du ñu def lu dul sant di ñaan suñu boroom gën ñoo jàppale ba suñu liggéey ci yoonu Cheikh Ahmad Bamba yomb ni ko taalibe yi bëggee mbokk yi bëgg ko maa ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla ñu suñu borom bàyyi bàyyi leen fi bàyyi fi mbooloo mu jullit maam Cheikh Anta moom message bi mu ci jàll rek ni mu nekkoon ak sëñ Touba nekkoon rakkam nekkoon euh, taalibeem dafa nekkoon koo xam ni bi sëñ bi nekkee ci géej gi am na bis boo xam ni euh, dafa seeti sëñ euh, sëñ bu mag bi bi mu ñëwee ba fi tolloog fi sëñ bi nekk euh, fekk na sëñ bu mag bi mi ngi nekk ak sangu-sang yi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni ko sa rakk ji warumaa gis ba àddina sosoo ba léegi bi ma fi jógee kenn mu mënumaa gis ku dul yow sëñ Touba kon nag danaa la xamal ni sa rakk jooju mooy yore sa zaahir man ma yore sa baatin loolul rek doy na ci martaba sëñ Gaawaan digganteem ak sëñ Touba kon nag ku am maam ju mel noonu liggéeyal sëñ Touba liggéeyal yoonu sëñ Touba euh, bu bis bi amee war nga ci sant topp ndi bàyyi bàyyi ndigalu sëñ Touba di ci sant suñu waajur nag mi nga xam ne muy sëñ Ibrahima Ndar moo ñu boole ci bis bi bis bi bu dellusee ni mu ko daan defee rek lañ koy defee kon nag loolu rek laa ci mën wax quoi ñu leen di sant di leen gërëm. kaddu yi a ko déggandoo mbokk yi mu mel ni kaddu yu am am solo sëriñ bi yëkkati na ko ci jëmale ko ci njaboot gi ak taxawaayu jëmm ji nga xam moom lañ ñëw ci këram mu mel ni sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar ko am wàccuwaay la bu rëy rëy ci Cheikh Amadou rek ah, doo koy ñëw nag ci borom gaawaan kon nag ah, li ci am solo rek mooy. ñu am ay mes message bi ñu war a jànge ci bisub Daaru Salaam mooy xam ni kii doon def lii dafa liggéeyal Serigne Touba rek ba mu gërëm ko am ci Serigne Touba lu kenn amul te li ko waral mooy jëf yi mu jëfal Serigne bi kon nag loolu soññ la ci mboolem taalibe yëpp kon niñ koy dañu wéyal rek siyaar bi incha allah ci mbooleem kër yi mboolem waa kër Maam Cheikh Anta yëpp rek di leen jox leen daje ba ci kanam incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jaxal salaamatan taduumu yaa salaam li yawalil ayaali fi daari salaam amin bi daari fataa tuuba li maskanihi daari salaami kama bil makka wal madina amin bi daari fata tuuba li maskanihi daari salaami kama bil makka wal madina